maa ngi tuub di jéggalu ci kàddu yi te nañ ma jéggal waaw ci barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yaakaar ñun ñëpp uh-huh. quand j'ai acheté le terrain là j'étais avec ces talibés là quand je l'ai construit j'étais avec ba ni ma paree ba dëkk mm-hmm. ñooñu nga gis ci sama live ñuy jàpp sama karaw mm-hmm. xale yi la ñu ngi fi nga xam ne moom mooy kër na bu kewe ñu gën ko xam ci Nabou Dash actuellement nag ku ko tudd ñëpp seen xel dem ci problème bi nga xam ne actuellement mi ngi tourner autour d'elle tax ñu daal di déplacé wala ngir ñëw waxtaan ak moom un tout petit pour xam mbir yi naka la demee mais également xam aussi coow li nga xam ne ñu ngi koy dégg ci moom actuellement fan la mujj mais pas avant que ñu koy bàyyi d'abord mu nuyoo puis ñu dugg ci waxtaan bi ngir rek mu indi ñu ay leeral ci li nga xam ne actuellement ñu ngi koy dégg ci turam salaamaaleykum. waaleykum salaam donc euh, maa ngi nuyu euh, téléspectateurs yëpp. Mhm. di nuyu internet yëpp. Mhm. voilà di ko jaarale ci 221 euh, si mhm. leeral ak si Sénégal voilà di kontaan ci seen teewaay fii tey. Mhm. merci beaucoup Nabou ci euh, dalal gi ñu dalal alors euh, actuellement kenn du wax nabu te suñu xel demul ci actuellement li nga xam ne moom la ñuy dégg muy coowal taalibe yi nga xam ne ñoom nga doon défendre ba actuellement coow lu rëy topp la ci déjà boo ñu doon ñëw ñëwaatal ak ñun am tupp tupp ci li nga xam ne moom moo xew ngir rek ñu mën a dugg carrément ci waxtaan. Mhm, voilà donc euh, problème bi mu ngi déparé je pense depuis euh, cas bi amoon Touba. ci 34 viol yi jotoon a am ci diggante benn sëriñu daara ak mhm. ndongoom mhm. voilà période boobu nag mu nekkoon loo xam ne sénégalais yëpp a ko naqarilu rawatina jigéen ñi mag ñi ndaw ñi y pas une couche de la population boo xam ne le problème ne les a pas touchés. Mm-hmm. en tant que parent en tant que mm-hmm. mère ou même en tant que père même en tant que parce que je veux dire que boo génnee cadre papa ak yaay rek. Mm-hmm. Euh, y a plus rien qui reste. voilà donc période boobu man daf ma fekkoon en état de grossesse. je voulais parler de la situation mais mon état de santé ne me permettait pas de parler de la situation. donc quand j'ai eu euh, alhamdulilah Ahmadou Bamba mon fils après je me suis dit bon bu ma relancer wéeru débat bi. c'est un peu provoqué. comme je ne suis pas dans la provocation, je me suis dit, je vais laisser couler. Les gens ont fait une communiqué autour de ce problème-là. Certains marabouts ont pris la, le dossier en charge. L'État a fait ce qu'il devait faire. Donc, pour moi, il n'y avait pas encore à surcharger la communication. C'est côté boobu noonu. Donc, j'ai laissé couler. Il y a trois semaines, ñu dégg naa mu am benn fait bu am fii Kër Massar. Euh, plus précisément, unité 7. Juste à Voilà. Euh, diggante sëriñ ak euh, neuf taalibeem donc les faits se sont se sont passés il y a trois semaines man euh, j'ai reçu le cas il y a quatre jours et je l'ai reçu j'étais en train de me coiffer quand j'ai reçu le cas j'ai appelé mes filles je les ai dit mais écoutez lii ak lii am na j'ai gardé mon sang-froid j'ai gardé mon sang-froid mais je n'ai pas pu garder mon sang-froid ba tax na sama létt yi sax yeggul mhm. ma arrêté sama téléphone avec un avec le sang chaud et les émotions wax li nekk ci sama xol waxuma woon en tant que influenceur dama wax en tant que yaay je suis une maman j'ai deux garçons sama sama sama sama sama sama taaw bi euh, Mam Malick mi ngi jàng alxuraan donc imaginez aujourd'hui man je suis pas avec lui quand il fait ses études coraniques ma mm-hmm. xëy un bon jour j'apprends que a été violé je sais pas abusé de quelque manière que ce soit mm-hmm. loolu du ma neex mm-hmm. je vais me retrouver anéantie avec un enfant qui qui je sais pas comment je vais je me suis mise à la position des parents et j'ai parlé en tant qu'une maman et en tant qu'une femme te gis nga jigéen am na nu muy nekkee ci émotion peut-être kaddu yi mi war a am du ko am parce que jigéen matul tamit du contrôle góor moo ko baaxee mhm. mais tey même dans les foyers même dans nos foyers mhm. c'est la femme qui pète plus de câbles que les hommes mhm. te ñun ñooy vite en arriver on on en arrive vite aux mots aux mains maanaam exagération bu amee ci côté émotion rek jigéen la parce que dañoo ñàkk daal jigéen ñëpp a yem ku ci xool ci sa jabar xam li ma lay wax en tant que yaay ma génn ma wax ma ne que tey population bi ñun en tant que parents suñu jëlee suñuy doom dénk ko sëriñu daara yi c'est parce que on veut que ces enfants là aient le Coran dans leur cœur que ñu màgg nekk ay nit ñu ragal yàlla ñu ñu ñu ñu am diine ça fait plaisir su may gis ay euh, je sais pas Malaisie premier prix du Coran Sénégal Sénégal Sénégal Égypte loolu mais on est sur les réseaux nous sommes informés ñëpp xam na ñi que le Sénégal seen niveau de de seen niveau jàngale au niveau coranique c'est c'est le meilleur ba arabe yi dañuy ñëw ba fii tey ñu ngi nii à quelque part du Ramadan on voit si Ablaye Dia Sénico li muy def mm-hmm. qui peut cracher sur ça personne mais sama ras-le-bol sama cri de cœur c'était face aux actes maltraitants faits aux enfants mm-hmm. que ce soit filles ou garçons mm-hmm. ils ont droit à avoir la sécurité dans les écoles dans les daara dans les rues rawatina ma bokk ci association si benn ONG man ak la présidente Fatoumata Samaké Fatoumata Samaké vous la connaissez vous la connaissez tous elle est euh, PDG de de des Góorgóorlu. Mhm. c'est une femme battante d'ailleurs qui voulait se présenter ces élections yi mais finalement je sais pas peut-être bon la prochaine fois mooy nekk li gën. elle m'a appelé mhm. elle m'a dit Nabou je vois comment tu défends les femmes mhm. je te me fais cofondatrice pas actionnaire hein, ou pas journaliste je sais pas quoi non cofondatrice de l'association qui défend les violences faites aux femmes et faites aux enfants ñu amal le 30 bii dernier suñu meeting bi fii fii Kër Massar ba ñëpp ñëw macha allah autorité boo xalaat ñëw na fi. je remercie en même temps le maire de Kër Massar ak euh, vraiment le préfet et le sous-préfet ñëpp ñëw man sama jour inauguration bi fii euh, tel parce que Fatou quand elle me l'avait dit elle était euh, en Guinée ci benn sommet bu amoon en Guinée nekk fi woon. elle m'a dit on va recevoir la première ministre de la Côte d'Ivoire ci suñu association bi xeex jigéen ñi wàlleefu jigéen ñi ak xale yi mu jàmp mais ba ma demee tey euh, jour ba ma demee ci préfet bi le préfet de Bambilor quand je suis allée le voir mais j'ai eu une autorisation exceptionnelle ñoom du ñu joxe autorisation moins de 72 heures de l'événement mais dama ñëw na ko damay def don au daara don aux talibés et aux enfants et aux femmes démunies dañu ma nabu c'est une cause noble autorisation ci saa si la ma ko defal ce qui n'est pas normal parce que une autorisation dafa am un délai requis mais daf ma defal autorisation en un vraiment dans une dans un cadre exceptionnel. Mhm. et puis ba ma ko defee 23h lañ ma joxoon mais dem naa ba 2h du matin te kenn arrêté wu ko. Mhm. parce que les autorités appuient euh, euh ce que je fais. Mhm. Euh, pour la population pour la communauté surtout pour les femmes. et les enfants parce que je lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. kon tey su ma waxee ci kaaw viol bi am Kër Massar. man ma dëkk Kër Massar. di liggéeyee Kër Massar mais war naa ci wax. très bien euh, mbir boo xamante ne euh, déjà cause bu noble la beneen bi euh, attouchement yi nga xam ne wala boog xale yi nga xam ne ils son victimes d' attouchement ci li nga xam ne moom mooy daara yi ak école bi dafa bëri et pourtant parents yu bëree bëri amuñu moyen comme ni nga ko amee pour mun a dénoncer li nga xam ne mu ngi am te yow def nga ko mais cool la ci topp actuellement est nekkul aussi manière bi nga xam ne noonu nga noonu nga dénoncer situation bi moom moo yóbbee wala boog moom moo la yóbbee jamono gi ci lii nga xam ne ci nga nekk. donc jamono ji moom maa ngi ci ay xat-xat yu métti. yal na ko yàlla teg maa ci ay guddi yu métti. Mm-hmm. parce que man j'ai l'habitude de dormir la conscience tranquille mm-hmm. man rien ne me fatigue si ce n'est ma conscience mm-hmm. ça fait trois jours que je dors la conscience fatiguée et pleine parce que je me dis une chose qu'il y a ma famille ma mère mes employés ñoom ñëpp dañoo nekk ci tension parce que nekk ma ci jàmm ñi ma bëgg kenn amatul jàmm les gens na bu qu'est-ce qu'il y a ça va j'ai reçu l'appel de Gabriel Kane tout le monde m'appelle Nabou ça va ça va doomu chérif yi amul ku ma woowul ñëpp ndeysaan teg naa leen fitna te loolu ma leen teg neexuma mais derrière ça il y a peut-être la façon dont j'ai pris le sujet à cœur avec les insultes que j'ai dit contre Euh, à l'encontre des des des des des des des serigne daara violeurs je répète. c'est pas passé j'avoue que peut-être kàddu yi waroon na mën a gën a rafet. mais jigéen laa te bu ma amee émotion du ma mënuma woon a contrôler wu. te man tuub naa si jéggalu naa ci kilifa yooyu noonu. parce que ay jullit lañ avant tout. ma nekk jigéen. di liggéeyal jigéen ñi di yële xale yi. kon kooku ki nekk ci koñ di def ndax xale di wax ndax ay jigéen. nekk ci samay live di encourage jigéen ñi liggéey leen liggéey leen liggéey leen bay bëgg a dem ba xamee ma ko ci mhm. man awma benn intention mhm. saaga samay kilifa diine mhm. mais peut-être am na ñoo xam ne dañ se dañoo jël problème bi lax ci jaan or que moi je pense que j'ai fait des insultes à leur égard je me suis excusée pour moi le problème aurait dû s'arrêter là mais quand je me réveille je vois des plaintes de lui des plaintes de lui des plaintes des plaintes on est-ce que nous sommes musulmans quelqu'un qui fait une erreur qui s'excuse une erreur de communication c'est une faute tactique ça arrive à n'importe quel joueur Sadio Mané gis na fi bal du benn du ñoor dóor pénalty yëf yi duggul waaw de ba tey duggul mais après euh, euh, euh, c'est pas parce que duggul que c'est un mauvais joueur erreur tactique la def naa une erreur tactique j'ai reconnu mon erreur et je me suis excusée devant tous les Sénégalais parce que je suis très humble man duma duma duma duma duma je ne vais pas refuser ce qu'on me reproche je ne fais pas le bras de fer je ne fais pas ça man soo ma waxee sama koy nangu mais nag li may défendre mooy les attouchements qu'on fait aux enfants et aux femmes je reste pointue dessus que on n'a pas le droit nul n'a le droit de faire subir à des innocents quelque forme de de de de que ce soit physique que ce soit intellectuelle que ce soit moral c'est c'est c'est en fait la logique ne le permet pas et c'est même pas intègre pour des hommes comme ça nous sommes des grands messieurs le Sénégal dépassé na foo xam ne war nañu am ay cas yii donc du daara du école bi mais c'est les enfants en question qui sont mon problème d' accord euh, déjà pour ñëw rek après ci question NIMS parce que xam naa fi ma jëm nii fa la bëgg a jëm déjà coow li après ak euh, fi mu jëm déjà xolu yaay euh, ñëwal la ba Sénégal yu bëri bëri aussi comprendre nañ la déjà gis nga réaction wu yi ak soutien bu ñu la apporté bi mbir bi amee ba tey comme pour dire que Sénégalais yi peut-être jàpp nañ ni que bon dëgg bi nga wax mënoon na gën a oyof mais quand même nañu ak yow ci li nga xam ne eh, boog moom mooy dëgg yi nga xam ne pour mën a wax li nga xam ne mi ngi euh, mi ngi doon benn mot boo xamante ne ci biir société bi la nekk dèjà bi loolu amee gis nañu waa Aar Daara ki nga xam ne moom mooy Matar saar euh, moom mu daal di jiite ak ay gàngoor goo xam ne gis nañu dèjà demoon nañ tribunal euh, pour ensuite dem fi nga xam ne moom mooy cybercriminalité ngir wax ni boo dina am benn plainte boo xam ne dinañ ko def ndax plainte boobu jot nga ko wala boog jot nga convocation bala ñoo ñëw ak NIMS ci question. voilà déjà nit boo jàppee ni nit daf la tooñ ni Matar Sarr def c'est normal la loi lui permet son droit le lu permet am na droit dem ne diw daf ma manque de respect ci bërëb lii def na ma lii dem def plainte am maintenant nag c'est à la loi de juger c'est la décision appartient à la justice ba fii may wax ak yow nii je n'ai reçu aucun appel du procureur je n'ai reçu aucune plainte du procureur te si le procureur m'appelait aujourd'hui si ça si j'allais allumer je vais allumer ma voiture et mm. aller répondre parce que nul n'est au-dessus de la loi je suis un citoyen qui travaille dans ce pays lu mu fekk ngeen fait peut-être dix personnes yu may liggéeyal mm. kon y a des choses yoo xam ne man du ñeen ñe ma ko yox man xam naa ko mm. je travaille dans ce pays je connais pays là du ma jéggi li ñu lu ma lu ma def mais ñoom tamit nañ man nangul tamit ni que malgré que juum naa am naa ci part de vérité excusé wu naa nañ ma baal bu ñu ma mënta baal nañ dem ci yoon yoon atte mais man li ma bëggoon mooy ni que man Nabou Kébé euh, nañu xam ni man awma problème ak sëriñu daara yi je ne suis pas l'ennemi des sëriñ de daara moi je suis pour la cause des enfants ils sont également pour la cause des enfants je pense que tëj bunt bi ak toogal ñu waxtaan je pense que dara waruñu boole c'est du pareil au même ils défendent une cause noble je défends une cause noble man nag ñoom dañoo war a nekk un bloc ñun ñun ensemble ñu lutter contre ces gens qui se font passer pour des sëriñ de daara et qui ternissent la religion musulmane mm-hmm. et la, la religion islamique mm-hmm. je pense que c'est ça la solution moom dafa woote ci 760 478 bi mm-hmm. qui est le numéro affiché sur la page Facebook qui est un numéro commercial tey yéen ñëpp fii nii patron de presse yi nii est-ce que seen numéro patron bi en tant que tel mooy nekk ci page de travail am mais non loolu la logique le permet jot na sama benn xale la fille lui a répondu comme quoi que madame n'était pas là attendez qu'elle arrive mu ne noonu dañ ko ñàkkal kersa moom bu defee loolu mais dafa waroon insister su insister jotuma na dawal otoom ñëw ba ci man léegi man su ma ko ubbilul sama bunt wala moo man ko une quelque impulsion que ce soit mais woo nit ki jotoo ko jot keneen ne jot naa ko elle m'a fait si mais faut arrêter. non man xam nga euh, man munuma ko woo man parce que si il m'avait appelé et que il a il avait il était passé par des gens de mon entourage peut-être def un message communiqué que bëgg naa wax ak diw man dinaa ko woo mais il naa montré en aucun cas qu'il voulait parler avec moi dafa doon teggi tuuma maanaam moom li mu amoon intention mooy porte ma plainte mais pour nit ñi bañ ko wax lu tax woowoo ko d'abord parce que jullit tamit attention on xeex bi maanaam du xeex sax faf mais malentendu bu amee si diggante ñaari jullit il faut ko kenn yëkkati téléphone am woo kenn ki léegi bu amul entente yoon doog cee am part moom da doon teggi tuuma da doon bañ ñu laaj ko est-ce que woo nga ndaw si comme li ma laaj la doon bañ nga laaj ko moo tax mu woo sama équipe jotuma man Ndeye Mbilé Guèye jotuma te ñëwul gis ma mais bu doon affaire bi eggewul yoon man dinaa ko woo ne ko li ma wax maa ngi koy tuub man koy jéggalu du woon intention bi xale yi ñoo ma taxoon a jug mais comme dem na ba egg ci procureur ba je pense que si on a un face à face à ce centre ce sera devant la loi mais je ne vais pas l'appeler moi non non non non. waaw xam nga ça c' est une très très bonne question man sama bopp réfléchir naa si pendant trois jours je dors pas je réfléchis je me dis nabu problème bi fu mu mën a egg mm. li conclusion bi ma ci am mooy mm. nul ne peut échapper à son destin mm. si mon destin est de passer dans la prison wallahi lazim je suis prête si c'est mon c'est dans mon destin de passer dans la prison je suis prête aujourd'hui son excellence euh, le président Macky Sall mais il est passé en prison Ablaye Wade il est passé en prison Ousmane Sonko est en prison man je suis qui je suis qui si ma destinée et ma volonté est de passer en prison je suis qui est-ce que je peux je peux je peux je peux modifier mon destin non def nañ ko Cheikh Ahmed Cissé mais est-ce que Cheikh Ahmed Cissé c'est Nabou Dash est-ce que Nabou Kébé c'est c'est deux noms différents on a dit Cheikh Ahmed Cissé on a dit Seynabou Kébé te gis na nit di nga def dara nit yàlla nangu mais yàlla dafay atte de yàlla day atte de te yàlla nañu yàlla atte au-delà de cela ndax da nga am problème personnel ak ñi nga xamante ni ñooy sëriñu daara yi nga xamante ni tey ñoom ñoo def plainte parce que dafa mel ni euh, mbir mi bu fekkente ne comme ni nga ko waxee tëj buntu ak kaa ñu waxtaan yaakaar naa këccoo war a fa am mun a am ba plainte bi voilà c'est une très bonne question euh, maa ngi lay remercier ci question bi ñu ma posé je pense que c'est l'équipe de Leral c'est ah. pertinent euh, seen taxawaay ñoom. démontre par 1 plus 1 égale que ñoom ñoo am problème avec ma personne. Mmh. moi je n'ai pas de problème. je pense que j'ai mon aura sur les médias a longtemps dérangé et ça c'était ni ñu koy waxee une porte entrouverte que moi-même c'est-à-dire des fois da nga jël bal war ko dugal ci kii dugal sa dama marqué sama camp man maa jël bal bi marqué ko sama camp donc man maa leen jox point bi mais dans tout état de cause man je suis quelqu'un boo xam ne la lecture de la situation parce que bu dee ñoom dañuy défendre diine ni man dama juum ci kàddu ma génn ma jéggalu dañ ma waroon jéggal bu dee c'était sincère leur démarche mais suñu insister à ce que la loi fasse son travail parce que on doit l'arrêter mais attends je suis pas un criminel je suis pas n'importe qui même si c'est dix salariés mais je les ai je suis un chef d'entreprise je me suis je suis venu de nulle part je me suis battu un par un jusqu'à ici aujourd'hui

un serigne de daara depuis que je suis sur les réseaux jamais tous les problèmes que j'ai eu ce sont des problèmes conjugaux avec mes ex-maris et ça ça me concerne moi la manière dont je règle mes problèmes me concerne moi su ma neexee tegu ci nekk su ma neexee taxaw ci mbéb ndax samay jëkkër lañ man lañ concerné man la s'il y a une image qui se salit c'est mon image s'il y a un avenir qui se gâche c'est le mien s'il y a un nom qui se met dans la boue c'est le mien Mais jamais de la vie, je n'ai eu aucun souci avec aucun maître coranique. C'est la première fois que j'ai face à Djamra, je suis face à Djamra, je suis face à Amatarsar. Il m'attendait au tournant, certainement. Et je dis certainement. Il m'attendait au tournant, peut-être. Parce que je ne comprends pas man, leur, leur démarche. Mhm. que aussi, ce n'est pas la communication de Nabo qui est euh, euh, ci li nga xamante ni moom mooy suñu valeur ak suñu aada peut-être jàpp ni nanguñu ko aujourd'hui nabu di ko def euh, publiquement jàpp ni ki nit de boo xamante ni c'est elle est un peu dangereuse pour la société et puis ci avenir yu xale yi tu dis euh, sexualité tu veux parler de quoi maanaam wax euh, ci biir néegu sëy yi nangu on voit que damay communiquer ci wàllu sëy yi mais il y a combien d'émissions qui passent dans les chaînes télévisées du Sénégal qui parlent de comment coucher avec un homme il y a une émission je vais pas citer le nom de la télé la femme elle parle de comment coucher avec un homme comment faire est-ce que je suis la seule je n'ai pas une télé si les chaînes de télévisées ont des programmes qui parlent de sexualité je suis qui pour ne pas parler de ça d'autant plus que j'ai un business qui je vends des produits de femmes je vends des, des produits féminins j'ai des produits pour, tout ce qui est euh, euh, lu ñu koy waxee produits de beauté tout ça donc faire ma communication sur mon produit n'est pas tâcher la la la la la jeunesse au contraire à 34 ans si j'ai pu mettre un centre commercial te mënuñu maa topp ci diffamation mënuñu maa topp ci viol mun euh, ci vol mënuñu maa topp ci ci escortion de fonds mënuñu maa topp ci trafic de drogue c'est parce que j'ai travaillé ce qui se conçoit clairement s'annonce facilement dañ ko nangu dama liggéey ba agsi fii te duñu ko yàq ah je suis pas Cheikh Ahmed Cissé non non no non non non non duñ ko yàq tey ñaata jigéen ngeen gis fi ci place bi ku yàq société bi dana liggéey ut ay xale jigéen ñaata fii vous savez elles ont 30 ans elles elles ont l'air d'avoir 30 ans ces filles sont mes filles elles sont avec moi elles travaillent ici chaque jour que Dieu fait jeûne damay waxtaan ak ñoom na leen loo sëy sëy sëy sëy amalal sa bopp une femme doit se ça le discours tout le monde connaît dans ce discours là ma ne ñi yàq société bi mooy ñii di violer xale yu jigéen ñi xale yu dañ ko wax te dee. non non non moi je n'ai violé personne je n'ai tué personne. Ouais. d' accord wax nga ko déjà ngay euh, cofondatrice benn association boo xam te ne ñu ngi œuvrer ci lépp loo xam te ne vraiment day xeex yenn ñaawte fi nga xam ne ñu ngi koy gis actuellement est ce que ci combat bi nga nekk ñoom apporter nañ la seen soutien. Euh, donc ça c' est aussi c' est une bonne euh, de l' association mais vous savez am na xat-xat yu nit di nekk les gens ne s'affichent pas parce que il faut laisser la tempête passer et cette tempête là sa suma ko kenn je ne pleure devant aucune porte d'association ni de ONG rien du tout je vais la mener seule te je sais que au bout du tunnel y aura la victoire di boobaa laay gis ñëpp instant yi gisuma kenn ku dul sama waajur bu jigéen ak sama sëriñ di ko nuyu bu baax di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di sama coloré ci moom te gis naa ni ma taxawoo di nuyu waa Njaasaan ñëpp di yu famille sama sama sa sama sa di nuyu waa Taïba Niassène ñëpp donc man euh, euh, euh, duma bëgg wax lépp mais yàlla na yàlla leeral lépp mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. man euh, loolu laay xaar ci ñoom parce que tey yàlla dénk na ma baat boo xam ne euh, lu ma wax non c'est euh, yàlla dénk na ma baat boo xam ne lu ma joytu am ci ndam wala lu ma joytu nit ñi dégg ma léegi koo xam ne bu yuuxoo ñëpp dégg ko mais dangeen ngeen koy woo ne ko ni nga yuuxoo baaxul del yuuxoo nii yedd ma yar ma ci parce que c'est ça être un pédagogue c'est ça être un un un un guide on a dit un guide religieux un guide un maître coranique un maître spirituel mooy man tey je suis fort dans le commerce je suis fort dans amener des partenaires je suis fort un très bon marketeur mm-hmm. marketing communication maa ko fa dàq mais nag il faut seulement m'orienter mm-hmm. bu dee lu bon ñu seppi sànni mm-hmm. kon on a qu'à annuler le Sénégal tas société bi parce que il y a beaucoup de plaies les plaies sont partout tey en tant que un père de famille sa doom boo ko gisee muy tux cigarette est-ce que da ngay dagg moom at nag àllaaxira da nga koy yow ba mu ñëw wax ak moom ne ko lii du sa cër nit ñi fii lañ lay xaaree encadré ko dem ba mu njëriñ la noonu la man loolu lay xaar ci ñoom ñu toog ñu waxtaan li ma mën a apporter ci sëriñ daara dafa bëri man mes relations sont internationales képp kuy euh, kilifa kilifa je veux dire président ou même autorité Côte d'Ivoire Sierra Leone Ghana Congo j'ai des relations personnelles avec de grandes personnalités yoo xam ne tey mën naa fexe seen koom-koom ñëw ci daara yi yàlla buy defar day mel ni luy yàq te dama ko gëm mag sëriñ si dañoo war a toog waxtaan tuub naa jéggalu naa nañu toog ñu waxtaan koor gaa ngi ñëw daara yu bëri fi may waxe yow ni amuñu ravitaillement ma daara yi dama leen a yërëm dama bu ma attaqué ñu bon ñi damay wax ci ñu baax ñi dama leen a yërëm ndax yor presque cent personnes cent cinquante xale seen pa pa parents yi nag maa ngi ñëw ci ñoom ci édition espéciale mm-hmm. lu ma wax sëriñ daara yu bon yi dinaa ko wax parents yi lu ko raw mm-hmm. parce que tey ko coranique bi nga jël këram mm-hmm. dëkkal ay xale di leen dundal di leen solal toppatoo leen yow nga abandonné leen foofu dem du du couche euh, du du ceeb du suukar du meew du dara kon tey ku mel ni man war naa mën a jàppale sëriñ daara yi koor gaa ngi ñëw te koor dafa métti dafa métti ci sénégalais lambda rawatina nga yor ay mbooloo koor gi dinaa fi def lu nit mës sa def pépp fu daara ne dinaa ñëw tuub jéggalu indi ay daare alimentaires toppatoo te du fa yem te dinaa ko wéy di ko continuer ndax lii daf ma wan ni que man sama taxawaay man maa ko war defaraat fii mën naa fay am lu ne ci dëkk bi man maa war a defaraat sama taxawaay te dinaa ko defaraat peut-être man ma dernière question bu amul ci ginnaaw ñoo xam ne am nañ seen question tey Nabou dañuy gis buy wax ci taalibe yi xale yi day mel ni sax kuy bëgg tour ay xéewal euh, dañuy gis say live parfois <laughs> waaw ma <laughs> dañuy gis parfois ba ci boutique bi keroog gis naa benn video boo xam ne sax man sama yaram dafa daw bi xale yi ñëwee mel ni sax ku lay agressé <laughs> naan la lii la ñuy jël par force di exiger liñ bëgg am ci yow comme ci sarax tey euh, sa relation ak ak ak ak taalibe yi Euh, question bi moom. voilà ñu ngi jégalu bu ñu jóge fi te te duñ ko laajte question bi parce que tout simplement moom euh, ci combat bi mu nekk fekk na sénégalais yëpp ñu xam vraiment fi mu taxawee ci taalibe yi ndax bu dul dara gis nañu lu dul benn du ñaar muy euh, jëflante ak taalibe yoo xam te ne vraiment c'est pas du tout facile xale yi parfois ni ñuy seen seen habillement ni muy demee. seen euh, ni ñuy dundee vraiment c'est vraiment pas facile nit ki di jaxasoo ak ñoom ba di leen dimbale quand même moom bu ko defee c'est parce que tout simplement combat bi bu ñëwee euh, Sénégalais il faut ñu jàppale ko ci te xam ne loolu combat bu yàgg la woon quand même. Euh, gis ngeen photo bii nii. Mm-hmm. photo ngeen xàmmee ngeen karo bi. Mm-hmm. xàmmee nga karo bi fii mm-hmm. bi fii la woon c'était en gis nga deux mille 22. le le 27 août 2022. Mm-hmm. c'était ici. boobu dara amoo fi ñu ñëwuñu fi. Mm-hmm. quand j'ai acheté le terrain là j'étais avec ces talibés là. quand je l'ai construit j'étais avec eux. ba ni ma paree ba dëkk. Mm-hmm. ñooñu nga gis ci sama live ñuy jàpp sama karaw xale yi la c'est-à-dire que eh, involontairement j'ai développé j'ai développé une relation ñu ngi ñu ngi jégal de vraiment voilà et il faut la comprendre aussi parce que yaay la quand boo xamante ne vraiment elle s'est mise quand même à la place de des de euh, des des des femmes yi nga xam ne vraiment ñoom euh, c'est de c'est des mamans yoo xam ne développer une relation avec ces enfants là une relation boo xam ne c'est basé sur mm-hmm. aucun intérêt mm-hmm. xam nga tey boo siiwee mm-hmm. yàlla dénk la tuuti kenn du la jege ndax dara ku la jege am na lu mu bëgg ci yow ku la woo rek am na lu mu bëgg ci yow soit nga may ko yére soit nga may ko cheveux soit nga may ko dàll soit nga may ko xaalis wala sax ñu war la ñaanal ñuy sentu ci yow ay alal sentu ci yow man naa ko ñaanal après mu may ma ay millions te yàlla xam na ne fii sutura moo fi ne xale yi ma ànd ak ñoom xamuñu am na xamuñu ñàkk naa bu ñu ñëwee ah, ah na bu du ñu xiif mm-hmm. ma dem si bureau jour def leen ginaar ñu lekk ñoom ñooy commandé lu ñu bëgg lekk bu ñu ñëwee fii dañuy yëg fépp mm-hmm. te man li tax ma à l'aise ak ñoom c'est parce que dans une dans une partie man maa manque affection naturel mm-hmm. je manque d'affection naturelle qui n'est pas liée à mon nom et ou peu que Dieu m'a donné donc le fait que ma nekk ak taalibe yi te duñ ma woo ne ma may ma cent mille may ma deux cent di ma chantage ma je ma sens à l'aise donc bu leen nit laalee Euh, je je sais pas c'est c'est plus fort que moi damay jug wax bien vrai que xam naa ni sujet bi ma abordé nii c'est un sujet tabou mën naa ci tey ñàkk sama bakkan parce que j'ai reçu beaucoup de menaces c'est ñu bëri menacé nañ ma ñii nañ leen ma dinañ la dofloo dinañ yàq sa alal dinañ la sànni kort te man xam naa ni sëriñ am na xam naa ni gàllaaj am na parce que jóge naa ci ay tolof tolof kon man du ma kenn du ma wax ni Sénégal amul sëriñ mais dama leen bëgg a wax ni man seen doom laa buñ ma yàqee dañ xalaat ñi nekk sama ginnaaw est-ce que jar na ko est-ce que ku juum wax jéggalu jar na ngeen toog di ko yàq est-ce que yàlla di la santaan est-ce que diine bi lii la est-ce que diine bi lii la. bon. Euh, ban sëriñ woo bari na. am na koo xam ne Tamba la nekk wax na ma ne na ma bépp sëriñ bu nekk Tamba moom ci tor ci turam la wax mm. waxul ñeneen yi te man xam naa ni du ñëpp ñooy mel noonu mm-hmm. moom moo ne képp ku nekk Tamba dina dem ci daara bi mm-hmm. ñu defal ma ay dog mm-hmm. yoo xam ne dañ may yàq ci li ma wax xoolal loolu waroon maa mën a woo yedd ma ne ma lii ak lii bul ko waxee parce que man mbëggeel rek moo ma ci dugal mais xolal loolu ñii di ma ci menacé tey da ngeen fekk ma def benn barrière fii dama ñëw fekk fii lu garaaw ci suba si si laa xëy ñëw def fii barrière fii sama kër noonu pour lan parce que dama dénoncé maître coranique bu violé taalibe bi est-ce que maître coranique yëpp a bon man su ma génnee ne vidéo bi man dama def live ne Kër Massar la xewee damay wax tey ci live boo xam ne si euh, kii problème boo xam ne c'est un problème de viol bu am Kër Massar kon xam nañ ni nabu mii wax na ci live bi problème de viol Kër Massar kon bokkuma ci mais mu am ñu bëgg profité ci occasion bi pour fexeel ma est-ce que loolu yàlla dina ko seetaan. bon c'est une occasion qui vous a def xamante ne mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. de cela chef d'entreprise la. Uh-huh. mais aussi c'est une boo

Ehm, ba ci eh, xalifu laayee nii xalif ñëpp ñëpp ñëpp bu ma limee damay juum ma bëgg leen wax ni que nag man bu kebe li nit ñi di wax ci man ñi ñenn ñi di wax ci man amul Sénégal dañoo baaxoo juger nit ci melokaanam te man jàkk naa ne nit boo leen jàppee ni que melokaan bi ma am nekkul melokaan bi war da ngeen koy woo ndax fii kenn rëccu fi kenn raw fi koo gis am na kilifa nga woo ma yedd ma ne ma lii ak lii ak lii bu dee yow lu baax moo la tax a jóg man awma intention saaga benn xalif awma intention saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mataar ci déclaration am nee na man dama saaga yonent bi man may kan pour saaga yonent bi amaana kàddu yi moo dëng te wax dafa metti te yaay laa man xolu njureel laa waxee nañ ko gisee noonu te jëggal ma maa ngi tuub si ajjuma ji nañ ko gisee noonu te jëggal ma jëggal ma samay kaddu te dinaa fi jóg bu ëllëgee bu may waxati ci kaay demee nii dootuma maas nuun gi parce que nee nañ damaa maas nuun ngi nangu naa ko dootuma maas nuun gi te dootuma maanaam jógale ci ay kaddu yu ñàkk euh, nu ñu koy waxee ñu ñàkk am war ma si seen ci ñoom man kaddu yi ma yëkkati dama ko jëmale woon ca ñooñee di def lu bon lee ndax pour man ñooñu mérité wuñ sax titre sëriñ daara moo tax ma jàppee leen comme ñi may xasanteeg ci réseaux sociaux yi ndax ñun ci réseaux yi xoolee ñun ñun noonu la ñu mel. dañuy wax di di di dépassante di waxante ay yu ñaaw parce que sunu sunu sunu communication la. man nag sama xel dama jàppoon ni que kuy def lu bon daara kooku doo sëriñu daara. moo tax ma waxoon lu demee noonu. maa ngi tuub di jéggalu ci kàddu yi te nañ ma jéggal. waaw ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yaakaar ñun ñëpp. Mm-hmm. incha allah je pense que le message est bien passé euh, donc tey jooyloo nañu ñun ñëpp je pense que li am solo rek mooy que ne nañ ko jéggal parce que tey sénégalais yëpp li ñu mën a comprendre ci euh, live bi nga xam ne moom nga defoon euh, ba tey nattu bi fekk la ci mooy que ni da nga doon dénoncé yenn yi nga xam ne mi ngi doon xew ci daara yi te ñu bëree bëri amuñu opportunité comme yoon ni nga ko amee am say réseau yi nga xam ne euh, ci foofu mun nga ko mën a jaarale pour faire comprendre aux sénégalais que ni am na ay xale yoo xam ne ñu ngi dund ay mbir yoo xam ne bu ñu ko màggaalee du baax je pense que ci loolu mun nañu fan yee passé dafa am benn ndongo boo xam ne fii la daanoo. si mm-hmm. buntu place bi. te fii dafa am ay caméra mm-hmm. te mën na maa génnee caméra yi mm-hmm. ndax caméra yi am na extérieur am na intérieur fii la daanoo man maa jug ba ma ko gisee ma dama jug bëreet jàpp ko mu tëdd fee fi ngeen ma fekkoon noonu fa la tëdd fi ngeen toogoon ci ginnaaw fa la tëdd man maa ko sang billaahi wallaahi ak ajjuma ji yàlla bu ma raw man maa ko sang samay loxo jël ndox mi ubbi sach bi sang ko ba mu set mari mi nekk fii moo ko jëndal garab ci pharmacie bi xale bi dafa naan garab toog tuuti xam naa bopp bi métti la ndax naaj bi ak dox bi ci la génn yóbbu pain chocolat ba muy dem tàgguwuma sax man ko naan maa la faj yaa ngi dem maa ngi lay xaaraat fii kon man lii nii nekkul loo xam ne euh, lu bees la ci man te aussi nit du liggéey ba fii di ko yàq ndax dama grimpé li ma am nii ñu ma ko dama ko foqati. kon duma ko jël di ko asaaroo ci mbedd bi mais cause bi bu dee man li ma yàlla dénk fii la nar a yem xayrun ndax nit mënta mucc mën nit mënta mucc te nit mënta raw ndogal allah kulli àll nañuy doxee kon lépp lu yàlla dogal ci mbir mii ma nangu ko avec philosophie muñ ko te muñ loo ko suñu borom ah, te si du jéggaluwaat bu baax samay soppe ñi ma bëgg sama yaay sama famille ñoom ñëpp nag képp kuy sama sama sama samay mbokk ñoom ñëpp sénégalais sénégalais nag aw ma seen fay gis ngeen tey ku ci mel ni Adamo mhm. nga xam ne maa ngi moom laalee wuñu mhm. génn na wax na Ahmed Cissé fii amul tey ku deful vidéo ci sama en ci sama en ci sama ci sama jëmm ji te ñu si bëri laalewuñu ñu si bëri peut-être duñ ma suivre mais ñoom ñëpp dagg seen yitte ñu waxal ma wane seen kanam kon loolu man amuma lu may delloowaat Sénégal yi dul di kontaan si nañ ma taxawoo te di leen gërëm te di leen jaajëfal te di leen jéggaluwaat encore une fois mm-hmm. uh-huh.